mbokku téléspectateur yu Equivox TV ñuy amaat mbégte dalal yéen ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi yéen ngi yéen a ngi tey ci seen édition spéciale mu di ganu Equivox spéciale boo xamante ni tey ñu ngi koy amal ci tolluwaayu réew mi ñuy am kontaan loolu dalal tey ci plateau bi ki nga xamante ni moo di Birame Khoudialo di membre du pôle de fusion avec PASTEF ak kii di Ibrahima Serge Malou di responsable politique de l'APR ñu bàyyi leen ñu nuyoo ba noppi balaa ñuy dugg ci xabaar yi dugg ci waxtaan bi ci sama ndeyjoor ki fi taxawee moo di biram Khoudia ñu ngi leen nuyu sëñ bi waaw ñu ngi leen di fay bu baax di nuyu waa téléspectateur Equivox TV di nuyu suñu co bi ba pare di ñaan lépp luñ fi wax mu jëriñ askan bi parce que moo ñu fi tax a taxaw. d'accord euh, keneen ki sama càmmoñ moo di Ibrahima Serge Malou di euh, responsable politique bu APR. merci beaucoup merci maa ngi leen di nuyu di aussi ñi leen di safoo di di leen suivre di suivre aussi seen site bi bu baax seen télévision bi di nuyu sama co-débatteur aussi Birame Khoudiolo di nuyu sénégalais yi yëpp di leen sant di leen gërëm ci invitation bi aussi. d' accord merci beaucoup alors démb li ñu gis euh, Ibrahima Serge Malou moo di ministre de l' intérieur mu génn def benn déclaration gannaaw loolu askan wi ñu ci bari tey bu ñu xëyee bokk na si li ñuy waxtaanee moo di ay teewaayu ñii di ay terroriste fii ci Sénégal loole bi nga jàngatee xibaar yi ba noppi ndax nekkul beneen étape ci fan yi coow li nga xamante ni xew na ci réew mi. mais bon coow li ñoo ko gisandoo ñun ñëpp et à li ci xew man mii di wax ak yow nekkoon naa sur le terrain jot am fi mu dugg xool. mais je dis que le ministre de l'intérieur mooy patron des renseignements patron aussi de la sécurité intérieure mooy maanaam moom bokk na ci ñi nga xam ne yoo war a garantir sécurité Sénégal yi bu demee ba wax ne am na ay force obscure yu nekk ci mim réew loolu xel mënees na koo nangu parce que modus operandi bi ñu gis nii ah ci kas yi ñu gis nii lii baaxewuñ ko ci Sénégal te du sénégalais en fait lii du sénégalais et on a des preuves yoo xam ne que nit ñi ñu nekk sur le terrain di yàq ay bien wu sénégalais yi mm-hmm. di taal ay station di taal ay Auchan am nañ ci les preuves aujourd'hui et le ministre l'a dit hier l'a confirmé hier mm-hmm. que ils ont bel et bien été identifiés maanaam euh, service de renseignement yu Sénégal mm-hmm. gis nañ leen xam nañ ñu ñu doon et que force restera à la loi dinañ leen déem a traqué ba jàpp leen d'accord alors euh, ñu tourner ci kii di euh, Birame Khoudia Lo déclaration bu ministre de l'intérieur wax ni kii am na teewaayu ay terroriste fii ci réew mi loo ko jàngatee. Euh, waaw déclaration boobu déclaration bu ñu bett la bu ne am na ay terroriste ci réew mi terroriste mi ngi jóge ci moo terreur terreur mooy faire peur faire peur boobu dañu yaakaar ni mi ngi jógee principalement ci gouvernement bi et particulièrement ci seen côté ci côté président Macky Sall bi nga xam ni moo orchestré comme ni ko Ousmane Sonko waxee le complot. de Sweet Beauty ba pare ñu convoqué ko mu war a dem mu am problème ci diggante bi ñoom ñu convoqué ba pare téye ko ci yoon bi loolu indi na appel à la terreur un euh, euh, trouble à l'ordre public ñoom ñoo ko indi parce que au fond ñoom ñoo arrêté oto Ousmane mi ngi doon dem comme il le faut benn appel à l'insurrection ñoom ñoo ko indi parce que au fonds boo xoolee situation bi ñu indi condition yi ñu créé moo indi insurrection bi troisièmement trouble à l'ordre public wala manifestation non interdite mais y avait aucune manifestation man maa ngi bokkoon ci ñi ànd ak Ousmane Sonko jógee euh, ci këram di dem di wuy ji mi ngi duggoon ci oto man maa ngi dox topp oto bi ak garde du yi mais ñoom ñoo ñu arrêté une fois deux fois jaar leen fii bu leen jaar fii bloqué ñu pendant deux heures de temps loolu moo indi manifestation yi donc manifestation yooyu ñoom ñoo ko indi seen côté moo indi manifestation yi. donc yooyu bu ñu ko collé président kon ñi ñu gis keroog ñu génn di manifester parce que tamit Ousmane Sonko dafa def benn appel à la mobilisation à la veille de son arrestation ñoon ñëpp ñëw tamit doon ko jàppal tànk ndax du tamit yi fi ci ñoom la jógee et puis moom bi ñu ko nee na jël beneen yoon bi ndax gënoon gënul woon mu jël ko ngir jàmmam. bul fàtte ni bu fekkee ni ñu ngi convoqué nit muy Ablaye Wade muy Idriss Seck en son temps muy moom mii Macky Sall tey. bañ ko convoqué dafa wër Ndakaaru ñaata waxtu ànd ak ay nitam soo gaa egsi baaxoo nañu bu ñu convoqué nit un homme public mu ànd ak ay nitam man maa ngi ñëwoon pour supporter que mais il faut dire que ñu ngi àndoon ak moom di scanner président Sonko président Sonko alors ñu arrêté ñu une fois la gendarmerie deux fois la gendarmerie la gendarmerie a réglé le problème en disant que dinañ leen encadrer ba ñu egg. mais dañu dem ba sa yàgg gendarmerie commencé di sànni ay grenades lacrymogènes maa na di toow maa nga fa ñu sànni ay grenades lacrymogènes booy yi daal di riposté ba mu dal Jibi Gueye fii ci bopp ñëpp gis nañ ko ci télé bi. Hmm. Jibi Gueye Ndiaye euh, mooy chef protocole protocole bi Sonko euh, Ibrahima Seydou Malou sànq yaa ngi wax nii am ngay preuve ci wàllum. Euh, xamante ne ngeen identifié nga leen tey jii bu fekkee ni identifié na leen est-ce que jaroon na kon ñuy def déclaration bi nga xamante ni dañ ko organiser ba askan bi daanaka seen xel toogatul. non may ma rek ma répondre par rapport ak sama co-débatteur li mu wax sànq. c'est-à-dire que il faut ñoom ñu bàyyi nekk dans la manipulation et tous les jours noonu lañu dëkkee ak sénégalais bi combaaloo Ousmane Sonko dafa def ñaari conférence de presse yooyu yëpp appel à l'insurrection mortal combat moo ko fi wax appel à l'insurrection nañ jaay suñu bakkan yooyu yëpp moo ko wax beneen bi bi mu mujj def avant ñu koy wuyu lu mu wax ñëw leen ngeen gunge ma moo ko wax période bi ñu nekk on les lois et les règlements de ce pays dañ koy tere malgré ça mu bravé loolu waxatuñ loolu Ousmane Sonko mi ngi kë génn këram 8h55 pour dem palais de palais de justice 8 h cinq nan la mën a yegg palais de justice comme soit sérieux te yoon bi ñu génnee cité kër góor gi et puis j'ai des preuves qui sont là veille bi veille bi nga xam ne dañ ko convoqué ñoom seen biir dañ doon envoyante ay messages. Mm-hmm. pour tracer ñoom seen itinéraire bo mais amuñu si droit ñoom. am nañ ci droit mais comme aussi les forces de l'ordre ñu amee droit qui garantit la police municipale la police de la circulation tey da ngay yeewu dem ci VDN bi sax di ñibbi wala liggéey di ñibbi ñu baare foofu yëpp ne la nii nga yow nga am urgence ñàkk am urgence parce nu ñun loolu lañ sekk ak ñoom ñoom aussi ñooy garantie circulation bi Ousmane Sonko mooy kan mooy kan ba ñu ne ko jaaral nii mu ne du jaar ñoonu mooy kan mais eh, ñëpp xam nañ déglu ma rek ñëpp xam nañ moom ni mu bëggoon jaare nee naa la la veille dañu intercepté seen i message ñoom. yan message la. ay message comme quoi que dafa am itinéraire ñoom bu ñu bu ñu tracé woon seen bopp te itinéraire bi mooy premier point de chute mooy rassamblement mooy kër Ousmane Sonko deuxième bi mooy rond-point cité kër góor gi troisième bi mooy université quatrième bi mooy rond-point mais tey nan lañu ñu mën a jaaree Cheikh Anta Diop nga xam ne am na au moins deux grands hôpitaux hôpital Fann ak hôpital Abass Ndao des universités sante de transfusion sanguine nga xam ne période mbas bi ñu nekk nii nit ñi Fann la ñuy fajoo yow ñu baare foofu yëpp ne la awal yoonu Corniche ñëpp xam nañ ne ñu Dakar lañ dëkk mu mënuñoo nax ñëpp xam nañ ne pour dem palais de justice boo jëlee Corniche boo génnee da ngay dem sa yoon Ousmane Sonko kañ moom la neex. mu toog ci oto mu yàgg ba Stelmenwos da du bouger day xaar moom moom day xaar huissier bi ñëw constaté lool. te yor naa fii aussi beneen preuve boo xam ne boo leen ma ko zumalee ma génneel la ko ah, le préfet le préfet le préfet di wax ak avocat am yi le préfet di wax ak xam nga y a trop de manipulation dans cette affaire il faut qu'on arrête alors di fàttali yéen a ngi si euh, spécial euh, ganu Equivox jamono ji ñuy dalal Ibrahima Serge Malou ak kii di Birame Khoudia nekk ci Pastef kon le temps Ibrahima Serge Malou di génnee preuve yi di ko seet ñu jox kàddu gi kii di biram Khoudia Birame Khoudia li Ibrahima Serge Malou loo ci wax loo ci loo ci. li mu wax dafa ma jaaxal moom est-ce que police la nekk wala gendarmerie la nekk wala fu mu nekk ba mën a am ay preuve fa ñu jaaroon ak fa ñu war a jaar moom mooy kan ba war a am loolu est-ce que bokk APR. war na mën a tax nga am ay preuve naan dañuy joxante ay ay ay ay message mais message yooyu yow fan nga ko jële cela veut dire quoi cela veut dire que complot bi dafa leer vidéo bi ngi nii zoomal ma ñëpp gis nañ ko non zoomal ma rek nga dégg préfet ba muy wax ak avocat bi ah li gis nañ ko tout tout man man man du pour yow laa koy wax dama koy wax pour téléspectateur yi. ñëpp gis nañ ko message bi la seen seen ñoom ñaar la. non parce que préfet da doon wax ak ñoom ne ko ñaata. oto ngeen bëgg mu jàll. avocat bi ne ko. Mhm. on a quatre voitures. Mhm. mu ne ko quatre yëpp ngeen bëgg mu jàll. mu ne ko waaw mu ne ko jàll leen. préfet dans la dans la vidéo préfet nee na quatre voitures ngeen bëgg mu romb. Hmm. mu ne mu ne ko wii avocat bi ne ko wii mu ne leen romb leen ça veut dire quoi ça veut dire que Ousmane Sonko moom ci boppam li ko dal ni moo ko bëggoon. dama ne Ousmane Sonko bu ñu bëggoon comploter ak moom dëgg-dëgg c'est-à-dire une affaire de viol entre deux personnes une affaire privée nga xam ne benn ndaw moo génn ne la yow dala porter plainte parce que da nga ko violé ana complot complot buy am kay yow sa diw la ak sa bëgg-bëgg sa nafsu parce que Ousmane Sonko kenn téyewu ko diri ko Sénégal bi nag boo waxee ñu lay menacer wala di la xooxatal ñu ngi nax seen bopp dafa mu ñu koy def ak ñun ko dul def man nag bokkuma ci yoonu. ok il faut qu'on soit clair une affaire privée. Mhm. Ousmane Sonko bu bëggoon mbir yi leer. lenn la rek mu jaaroon corniche tranquillement dem tribunal wuy ji heure bi mu génn. bu dawoon soixante cent cinquante kilo euh, cent cinquante kilomètres heure du yegg sax heure boobu au niveau du pale de la justice loolu c'est clair c'est que manifestement saa waay buggul affaire yi leer léegi nag justice dina continuer tey mi ngi ci loxo yoon. ok justice dina continuer. d'accord daañu si daañu si ñëw sax si tolluwaayu justice bi euh, Birame Khoudia Lo euh, li mu wax léegi ci conversation bi am diggante avocat bi ak préfet bi loo ci yokku avant may ñëw ci loolu euh, dafa ni dox nañu ni ñu dem leen ñu bañ a dem loolu amul man maa nga fa woon teew bi ñu jëkkee arrêté attends xam nga doguma la bi ñu jëkkee arrêté dañu sànni ay grenade lacrymogène grenade lacrymogène yooyu ñu sànni moo indi confrontation boobu donc origine bi condition yi créer insurrection ñoom la te ñoom gendarmerie pare woon na pour avancer mais dañu jot ay ordre préfet bi ngay wax dafay wax mais préfet li mu wax ñëpp dégg nañ il faut charger est-ce que loolu waxu kilifa la. non est-ce que foofu mooy rôle am un commandement territorial nga bëgg ñëw taxaw ci terrain bi lu mu fay wut. amuñu commandant gendarmerie lu mu fay wut c'est-à-dire ils ont actionné tout le monde loolu moo wane ni complot la bu fekkee ne citoyen ñaari citoyen ñoo am problème mais arsenal gendarmerie bi wër kër Sonko guddi bëccëg suba ngoon waa lu mu fay wut ñaari citoyen am ku tooñ keneen ñu jël arsenalu état bi yëpp. indi fa taxaw loolu du complot deuxièmement muy dem ngeen kar ko ni ko fii ngay jaare par force attention man dama am ay éléments yu leer parce que dama doon dox ci wetu Ousmane Sonko gis nga bi ñu demee ba foofu ba taxaw ba ñu taxaw leen fa ñu taxawoon ñu sànni nu grenade lacrymogène sànni waale journaliste yi grenade lacrymogène pour tas affaire bi pour jël Ousmane Sonko foofu laa asphyxié woo complètement tourné nag jaar ca ca ca kii ba nu mu tuddati corniche Touba TV la wala Lamp Fall bi ñu ma woowee di ma interviewé ni ma waaw loo xam ci mbir mi boobu Ousmane Sonko ngi taxaw am na góor gu dox ni ma sama doom xaaral ma wax la ma ni ko lan la mu ni ma man de yàlla laay waxal maa ngi leen toppee sumbe jun topp leen ñetti kat kat ponkal yu nga xam ne kenn mosu leen gis arme bu nekk la ñu yore mu ni ma fii bu ngeen fi jaaroon catastrophe mooy am ma ni que nous avons toutes les informations mais pour confirmer xaaral ma jox la Lamp Fall TV boo demee ci archive Lamp Fall joxe na trop joxe na yëpp ay nervi lañu ay nervi lañu fu ñu jógee ay nervi lañu yu nga xam ni euh, tey boo xoolee ñoom ñi ngi weddi waaye ñëpp gis nañ ko ci tele bi mm-hmm. lu ni fàng kenn du ko jeex sëñ bi da ngeen jël ay nervi kenn du ko jeex nervi yi ñu ngi leen di gis ak seen euh, euh, voiture bu nga xam ni ki ko joxe mooy ministre presque mu nekk voiture de l'administration ñëpp constaté que ñu yore ay chaîne chaîne di dóor xale yi benn ñaareel ba gis nañu ñuy dóor ay xale yu nga xam ni dañu génn dañ lay jël si xamal looy wax de très bien xam nga ba ñu waxee Ousmane Sonko di ko xam nga la wax xam nga lu ma wax xam nga yow da ngay wax ay jël si Macky Sall ñëwal nga jàpp biram ku jëloo non fii moom kaay jàpp ma cest dafa ni dañ lay jël nañu ma jàpp loolu xanaa yow seetaanoo xanaa xamoon ni ba ñu jëkkee di wax laa ni nañu jàpp bi dama ko jëloo injustice fu mu xam attention nous ne sommes pas des il faut faire très attention waaw cadre yuuxu lañu mën hmm. non dama lay wax rek pëndal du question pëndal waaw déglu jël ay milices yéen ay pëndal da ngay dégg question ah, ah, ah, question gestion milice yi ñu yor sax armée sénégalaise yoruñu ko muy dóor à bout portant ci benn buntu Auchan beneen bi dama benn preuve koo xam ne mi ngi làkk tubaab tubaabam setul c'est un étranger parmi les manifestants c'est-à-dire que aujourd'hui il faut ngeen def ndànk Sénégal xam nga lan la soxla tey sérénité parce que aujourd'hui bu ministre de l'intérieur demee ba wax ne tey yaa di terroristes yoo xam ne dugg nañ ci combat bi et c'est vrai ça il faut le dire c' est vrai on les preuves sont là. non la mooy preuve yi. non preuve yi mooy dama lay woon non coow li coow li am na ministre de l' intérieur quand même. oui dans un pays sérieux mhm. ministre de l' intérieur bu waxee dañ koy mën a déglu. ok gis nga kii di wax ni. oui. boo déggee tubaabam nga xam ne kii ñag la. ok kii ñag la. armé jusqu'aux dents. nekk ci manifestation na ah Macky Sall na génn na génn ci réew mi tey ça interpelle tout un chacun qu'on soit patriote mhm. qu'on soit euh, apériste ñëpp benn lañ parce que tey bu dee Sénégal tey dañu dem ba ay Samba Boy dugg suñu biir dëkk suñu problème ñun parce que Ousmane Sonko suñu frère la Ousmane Sonko suñu frère la comme Macky Sall nu mu nekkee frère la politique boole leen ak question judiciaire te gëm naa ne dëkk bii kenn mënu ko diviser ndax xalif yi dinañ toog dinañ waxtaan te foofu la ñuy mujj ndax euh, histoire politique gënoon naa metti moo tax yenn wax yi mën naa ñàkk parce que tôt ou tard mhm. on se retrouver parce que lenn li ma leer mooy Ousmane Sonko ñàkkul bëgg Sénégal et lu leen war a leer ñoom mooy Macky Sall ñàkkul bëgg Sénégal <coughs> ñun ñun ñëpp benn lañ histoire politique dox na ab Ablaye Wade le l'ancien chef de l'État mm. ak Macky mm. mais fan la ñu mujj Masalikul Jinaan bii moo leen boole. kon nañu fexe ba kàddu yi ñuy génnee ñu xam kàddu yi ñuy génnee li mu doon beneen bi aussi ñu xam ne tey Sénégal guddi gi ñu toll nii attaqué nañ ko. Samba Boye ñi ngi biir Sénégal parce que ñi di tag léegi loolu tamit yéen depuis démb ba tey yéen a ngi koy wax est-ce que nekkul da ngeen bëgg a détourner l'attention yàlla xam na ne la preuve bi ma la woon nii woon naa la benn est que vidéo bi donc doy na pour non no am na yeneen vidéo am na yeneen vidéo am na ay photo parce que da ngeen wax ba tudd kenn koo xamante ni waaw cité woon nañ ko ci affaire maître Babacar Seye waaw ngeen wax ni ki kooku moom moo recruté ñi nga xam ni ñoo di. Euh, loolu loolu ñi ko wax. ñoom la engagé. mais man waxuma loolu. mais y a des de man li ma wax bokk cabinet président. li ma wax li ma wax leer na ñooñu. ils en tireront l'entière ñoom nañ jël l'entière responsable man li ma wax mooy li ma la woon ñii te fii ba suba naa la woon ay vidéo yoo xam ne des personnes armées jusqu'aux dents di tiire ay sénégalais loolu c'est pas sénégalais man tey APR laa nekk Macky Sall laa gëm gis nga patriote yi du mu metti metti maag ñoom dina metti ci plateau yi mais duñu génnante bal di dóorante. non Sénégal parce que sama non parce que man sama biir kër. samay rakk Ousmane Sonko la ñu àndal. ok man ma ànd am ñii ànd ak kii ñii ànd ak kii Sénégal noon lay defee mais am na foo xam ne fu ñu ko tolloo. nañu apaiser discours bi xam ne tey. Mm-hmm. tôt ou tard tôt question juridique. Mm-hmm. va être réglée. par les cours des tribunaux les questions politiques mais la stabilité du Sénégal ça ne se négocie pas. D'accord. léegi euh, bu fekkee ni euh, ay nervi lañu wala ay terroriste lañu. nee ngeen armée bi identifié nañ leen donc lan mooy lan la ñuy xaar kon pour neutraliser leen. mu nekk question yéen ñaar waaw c'est ça non non attends xaaral ma wax pare <laughs> parce que yaa ngi wax ay wax sànq yu nga xam ni d'accord naa ci ah attention cest dire mais qu'est-ce qui a créé les conditions ba milices yu dugg c'est-à-dire il fallait pas créer ces conditions là il fallait tout faire. xam ni ay frère lañu. donc condition xam ni Macky Sall. muy muy muy muy xam ni Macky Sall faral Ousmane Sonko ñi faral majorité. mais Ousmane n'est pas responsable attends Ousmane n'est pas responsable xam ni Macky Sall biñ ko convoqué en 2012 xamal ni dafa def le tour de des des des des kii ñu accompagner ko donc mënuloo ñëw tey nga ni fii ngay jaar loolu moo créé condition yi gis nga man bañu ma parce que ministre de l'intérieur lu mu am ci renseignement aw ma ko ci renseignement donc tey mënuma wax ni la mu wax ay ministre man toj ak saaga ak dugg ci ay affaire loolu du sénégalais je suis particulièrement d'accord mhm. mais boo créer condition yu nga xam ni dafa nekk condition insurrectionnelle dafa am ay samba boo yu ci bokk di ci dugg mais yooy il appartient à l'État de régler ces questions là attention parce que l'État est garant de la sécurité de d'Ousmane Sonko et de tous les Sénégalais. Mhm. mais yàlla donc woon créer responsabilité si loolu yéen nga xamante ni pour Sonko yi booba tey ñu ngi manifester tamit. amuñu ci benn responsabilité. non mais tout le monde est responsable. lu tax ma wax la coow li àgg na mais dama lay expliquer. Ah, aw ma ci benn responsabilité Ousmane ko amu ci benn responsabilité bu fekkoon Ousmane ko ba mu génnee di dox dañu ko accompagner parce que loolu mooy seen rôle état loolu mooy rôle am accompagner ko encadrer ko ñu bari sànni benn grenade lacrymogène man sama àqulaay taay lay wax dëggu lañ may wax du ma fen maa ngi woon foofu gos yi ils n'ont jeté aucune c'est-à-dire bi bi bi gendarme bi commencé def lacrymogène wax nañ sax booy bu leen sànni mais booy ils ont riposté te foofu la début bi manifestation bi jógee te c'est pas la première fois parce que wax naa que aussi bi Ousmane Sonko jëkkee bi ñu jëkkee manifester buntu ko Ousmane Sonko xale yi dañuy ñëw taxaw bi ñu ñëwee taxaw euh, Ousmane Sonko war a génn féliciter leen pour ñu dem. léegi ñun man a Jibi Gueye Ndiaye ñu dem wax ak policier yi bañ d'accord amul jafe aucun problème mais ñu nekk ba yàgg ñu ni comme ni nga wax. oui dañu nekk période Covid 19 il faut ñu tas foule bi loolu moo indi problème bi. d'accord léegi loolu moo indi. Uh-huh. jiixi jaaxa bi loolu moo indi confrontation bi parce que nag gis nga bu ngeen di tas foule marché yaa ngi am foule bus baa ngi am foule tata yaa ngi am foule xanaa foule Ousmane Sonko moo leen intéressé. ok euh, Malo léegi dañu dañu am vraiment des sources très proches euh, du cabinet de du président de la République li ñu wax moo di ñoom milices ñuy tudd. ki leen recruter wax naa ko léegi nee woon nañ tudd nañ ko ci euh, euh, assassinat metre Babacar Seye ñu wax ni que moo nekk si ginnaaw ba tax na bu fekkee tey armée bi taxawoon na pour mën a neutraliser ñoon di terroriste yi ñi leen di baare moo di manifestant yi bu fekkee ni armée bi gis na leen lan la ñuy xaar kon alors pour passer non xam nga xam nga dama lay wax man du ma waxantu man dama bokk ci système bi waay yaa may dama bokk ci système bi télé laay waxee mm-hmm. le ministre de l'intérieur wax na démb te li wax mooy dëgg man nee naa la war naa la ay vidéo te yayaayu day d'autres vidéos yoo xam ne mën naa la ko woon et ça c'est réel et la menace là dama bëgg sénégalais yëpp jàpp ko pré jël ko très au sérieux parce que tey bu dee ñoom la rek Sénégal dafa tuuti Dakar dafa tuuti mën nañ jàmbaar la ak ñoom jihadistes yooyu dugg nañ ok dugg nañ saa moom waxatuñ ko parce que le ministre le ministre de l'intérieur c'est le c'est le chef des renseignements c'est le chef de la sécurité intérieure moom moo génn wax ko en dehors moom xamoon nañ ko parce que nag qu'on se dise la vérité am na loo xam ne wax naa ko sànq c'est pas sénégalais kii di wax nii ñàkk la ñàkk la Macky Sall doit partir nous prenons la la le le l'ONU l'international di wax ça veut dire que manifestation yi ñuy gis nii ñu ngi dugal ay booy ay booy yi nga xam ne ay xale yu ndaw yi nga xam ne dañ leen rey sax ñoom ñooy nekk ci ginnaaw di tiire booy yi la tax alors police non attends police sénégalaise du jël arme chargé ko di ko dóor am civil sénégalais loolu nañ ko aar parce que ñun ñëpp benn lañ gis nga tey Clédor moom mooy avocat wu Ousmane Sonko. doomam. mais tey la commandant bi nga xam brigade de recherche moo jàpp Ousmane Sonko. gis nga paradoxe boobu. Sénégal noonu la mel. te tôt ou tard nee naa la on se retrouver mais lenn la mënul nangu. ay Samba booy dugg ci réew mi ñu continuer di wax waxu complot politique ci li nga xam ne fi ñu ko commencé mooy problème de mœurs la. problème privé la nañu bàyyi justice réglé ko mais lenn dañ ko xam dëkk bii moom bu tàkkee du du tàkkal affaire ñëpp lay tàkkal. ok tey nous avons l'obligation aussi de défendre ce pays là bu jaree sax ñun ñu wa jël mu wàcc ci suuf dinañ jël aar mu wàcc ci suuf pour defaan suñu Sénégal parce Sénégal daf ñu jox lépp te ñun delloowuñ ko lépp. te loolu nag ça ne se négocie pas foofu laay waxee ne Ousmane Sonko a. à à manquer de maturité politique parce que erreur yi mu def nii politique man du ma ko def wallahi lazim billahi boo bëggee Sénégal dëgg dëgg dëgg te gëm naa ne bañul Sénégal dafa am noo war a taxawee parce que moom moo génnee ci kàddoom mortel mortel combat moom moo génnee ci kàddoom nañ jaay suñu bakkan moom génnee ci kàddoom na président Macky Sall dina takk deret ci loxoom bu mu bëggee yóbbu police mais yow on a vu des leaders se sacrifier pour que le pour que dëkk bi nekk en pour que dëkk bi dox mais moom foofu dafa juum. mais est-ce que répondre tamit ci lu mu jàpp nii da ngeen ko comploter ba tax mu am réaction. waaw mais xam nga xam nga ki la comploter yow jàpp nga ne. moomul Sénégal même complot bu amoon parce que man complot gëmuma ko xam nga lan laa gëm. Ousmane Sonko daan na mënoon naa ko naw wala sénégalais yu bari naw ko mooy mu demoon ci juge huitième cabinet toog. ñu interroger ko parce que man am na ñoo xam ne ils sont membres de la majorité mais am na ñoo xam ne dañuy toog di déglu affaire bi fan lay mujj parce que nit ñi mënoo leen aussi Macky mënul noot sénégalais yëpp wala noot waa APR yëpp ba du ñu ibbi seen bët ubbi seen xel mënta ne affaire bi am na ñoo xam ne ils sont de la majorité bëgg nañ mu leer mais dans cette affaire là dafa mel ni. grand bi bëggul mu leer. man loolu laa gis balaa may jàll si biiram benn question bu mu lay laaj rek. waaw léegi lan moo tax coowal milice yi nga xam te ñu ngi koy wax. APR yàgg nañ leen jiñ da ngeen amee milice. waaw lan moo tax ñu bàyyi ba situation bi toll fii ministre de l' intérieur soo ko génne di wax waxi milice. alors que waroon na ko mën a def avant. non xam nga ñun ñuy wax. ñun wax ñu ay milice dañ ne force obscure étrangère yu dugg ci réew. ñuy wax. la ñuy wax APR maanaam gros bras yoo xam ne dañ leen di jël sax man mii di wax mais loolu dara léegi pourquoi alors ñu leen di tuddee terroriste. selon que ñoom tam ministre lañ leen di tuddee mais ñooñu ay terroriste lañ. parce que loolu lañu loolu c' est le ministre de l' intérieur qui a sorti ce mot la et c' est vrai parce que man mënuma gëm dans cette vidéo la waa ji team Auchan ay nit nekk ci biir pour dajji Auchan bi rek mu téye à bout portant pistolet di dóor ci biir mais saa yi loolu bu dul acte terroriste lan mooy acte terroriste. yor ay ay xeetu arme yoo xam ne armée sénégalaise amuñu ko kii ma lay woon ni ñag bii ma ma lay woon dafa camoufler euh, euh, kanam bi bokk ci manifesta manifestation yëpp yoo xam ne xale yi danañu romb sax ñu dóor leen pistolet xale yi dee ñu ne police la mais loolu du acte terroriste te ñi ci dëkk bi ñi ci dëkk bi ñooy xam booy yi bu ñu xamee booy yi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di tiire d'accord mais loolu nag sa interpelle tous les Sénégalais léegi nag ndax xale yi toog seen kër bàyyi ñu gérer parce que les forces de défense et de sécurité Sénégal nous sommes parmi les meilleurs ci sous-région bi voire man dans le monde léegi nañu bàyyi les forces de défense et de sécurité gérer loolu léegi nag la question juridique wala de justice wala politique ñu bàyyi ko politiciens yi ñu régler ko parce que man jàpp naa ne procès Ousmane Sonko incha allah l'opinion nationale est au courant le chillon international également sa va se faire dans les règles de l'art te bu dee defuñu ko dans les règles de l'art mais la population comme ni ñu génne woon mais on constatera ok alors euh, Birame Khoudia Lo li ñu la bëgg laaj moo di tey démb gis nañu euh, kii di euh, doyen des juges mu wax ni kii dafay saisir assemblée nationale pour que ñu amal beneen levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko alors que bu njëkk bi sax daanaka leeragul Sénégalais yi taxawaay boobu ci wàllu justice noonu lañ ko jàngatee yéen ñi nga xam boobu ba tey yéen a ngi jàppal tànk Ousmane Sonko. waaw taxawaay boobu avant ma koy wax damay wax ni gisuma keroog je te jure démb gisuma ministre de l' intérieur militant de l'APR laa gis parce que bi mu génnee. li mu wax yëpp si militant la. parce que ni mu waxee bay wax waxu ñàkku ana de l' intérieur ci ñàkku looy ñàkku ana lu muy ñàkku nañu bàyyeeg ñàkku te mu toppatoo euh, sécurité bi yow li nga wax léegi. je suis particulièrement d'accord si bu fekkee ni dafa am ay ñu nga xam ni terroriste la ñu dugg ci biir loolu nous sommes chargés de régler cette question la mais li ko indi rek mooy fondamentalement situation de insurrectionnelle bu amee rek dafa am ñeneen ñuy dugg ci biir te loolu mun naa lañ ko nangul je ne sais pas parce que awma ci lu ma leer léegi lever immunité parlementaire léegi lever immunité parlementaire bii ñu waxaat hmm. dafay indiwaat beneen procédure rek c'est-à-dire c'est une prolongation de la chose hmm. bu fekkoon ni ba mu ñëwee damay joxe solution bi mu ñëwee ba taxaw foofu ñu ni Ousmane Sonko fii lay jaar du jaar fii waaw yéen xanaa amu leen hélicoptère bu nga xam ni euh, armée beek moom bu ñu ko indi woon du ñu coppet Ousmane Sonko yóbbu fa fële bi avocat yi dellu see. moom it moom it bu jaaroon bu fa jaaroon ñu rendi ko. ah mais tamit est-ce que dañu koy rendi. moi j'ai la preuve. non arrêtez. wax naa preuve. biñ fa jaaree ponkal yi ñu gros bras yi ñu recruté. non dama ne non attends xam nga bi may wax dama ne fi bàyyi la ko. non da da nga juum moo tax ah, bul rectifier bàyyi bàyyi ba pare. Ousmane Sonko fi mu nekk nii actuellement. mi ngi en détention provisoire mi ngi section de recherche. gisu ko avocat am bu ñu bëggoon def tey Ousmane Sonko dara bu ko état bëggoon def dara yéen tey doo ci xam dara parce que. mi parce que yéenay état parce que yéen da ngeen yaakaar ni état bi amul séparation ak APR état ak APR dafa am séparation bul fàtte ni bi ngeen di def seen enquête a la gendarmerie gendarmerie dafa leeral mbir yi muy leer leer ba ñu nar leen jàpp yéen ngeen ni gendarmerie arrêté arrêté arrêté parce que boo leen arrêté wul dinañu jàpp ki nga xam ni moom moo provoqué affaire bi. levée immunité parlementaire levée immunité parlementaire boobu comme li ma ci waxee mais dañ ko war a lever waat actuellement bu fekkee ni euh, euh, euh, immunité parlementaire bi jógagul. ndax dañu def benn benn benn benn benn benn kii au niveau du du conseil constitutionnel mais loolu Ousmane Sonko est libre aujourd'hui mais pourtant vous le retenez à la section de la recherche de gendarmerie parce que non, chef d'inculpation yooyu yeneen yi ngeen indi muy muy muy fan la ngi section de recherche d'accord ngi section de recherche chef chef d'inculpation avocat bi loolu la fu mu toll nii beneen plainte la non attends mais loolu loolu du plainte de si du plainte ban kan moo plainte kan moo def plainte bi déglu ma du plainte dama ni da ngeen indi yeneen yeneen tuuma actuellement ay tuuma ay tuuma la waxal bul wax ci ay tuuma la da ngeen sos tiis amul justice sos tiis moo am c'est-à-dire da ngeen ko sosal da ngeen ko duural loolu la mag ñi di wax alors te loolu amu dara amu ci Serge beneen levée immunité parlementaire bi non beneen levée immunité parlementaire procédure la mhm. parce que première immunité parlementaire bañ koy lever juge huitième cabinet ak procureur réquisitoire réquisitoire procureur moom la ñu boole woon saisir le ministre de la justice le ministre de la justice saisir le président de l'Assemblée nationale pour les faits de viol looloo taxaw bi njëkk loolu deuxième bii mais deuxième appel à l'insurrection la boobu premier cabinet moo. yéen yéen a appelé à l'insurrection waaw déglu ma déglu ma kan moo appelé à l'insurrection ki toog ci oto man dama lay leeral est-ce que ki toog ci oto moom moo appelé à l'insurrection dama lay leeral appel à l'insurrection boobu. kooku préfet moo ko def. boobu bi ñu def noonu. voilà booboo tax tey. ñuy woowaat Ousmane Sonko. pour mais ki toog ci oto nan à l'aide bokkul parce que boobu dindi nañ ko ba pare pour viol bi la. ok lan moo si mais mais procédure moo demee noonu. ok article 83 constitution ak article 51 52 bu règlement intérieur moo ne député mënoo ko déglu mënoo ko téye tànk génn immunité parlementaire. et ci benn immunité parlementaire mënul am ñaar ñetti topp. tey bu ñu ko bëggoon toppaat ci leneen. il faut que ñu defaat procédure pour génneewaat maanaam kii pour walla ne député. dañ ko protéger loi da ko protéger loolu tax tey ñu yóbbu ko ak beneen charge bi ci topp mooy trouble à l'ordre public ma ba a créé condition yi ma manifestation euh, mais euh, moom manifesté wul xam nga yooyu yëpp xam nga mooy lan est tamit ah, puisque non non mais dama ne non dama dañu waxante dëgg dañu waxante dëgg la veille nee la man Ousmane Sonko saa yuy wax damay teg sama bikk ak fay di ko déglu Ousmane Sonko day def erreur yoo xam ne. dafa am ay avocat li muy wax yow dafa leer nañ avocat Ousmane Sonko day juum Ousmane déglu ma wax. amul benn njuumte bu Ousmane Sonko def Ousmane Sonko il est très nul en politique. te yéen ñii di wax ak yéen ñii di wax ni. yéen a ko gën a yées parce que jàppale wu leen ko. c'est-à-dire politique politicienne nous sommes très nuls. politique fen day def ay ay ay questions oratoires. xam nga wax di wax ba pare di tontu sa bopp. di poser question di tontu sa bopp Ousmane Sonko yooyu lay def. lu leer la wax mu tàmbale la dafa juum gis nga nii mënoon na parce que li mu wax moom imagine toi pour wan la ne manipulation da ci am dafa ne non man du ma dem ñëwaat na dinaa dem parce que sama avocat yi ñëw ne boo demul mën nañ la toppee. beneen sànq sëriñam moo ko obligé. du du du avocat mais yow xam na ne Ousmane Sonko bu demul duñ ko def nii <laughs> pire lañ koy def parce que duñu ko ñëw jël si. taxawaayam mooy lan. Ousmane Sonko ñenn ñi ne dafa wax waxeet dafa wax di du dem ñun ñëpp ñu d'accord ni ci du dem. sëriñ ñam ñëw ñaan ka dafa am ñun dañu jox njéer euh, euh, dañu jox cër suñu ay sëriñ ñun bokk ñoog ñi nga xam ni sëriñ bi bu dee wax dañuy du mooy sëriñ bi daan ka yëguma kaak yooyu voilà ñun bokk ñi dañu respecté parce que tamit kilifa yi ñaan nañ ko sëriñ yi dañ leen leen dañ leen wekk waaw da ngay déglu rek benn bi Ousmane Sonko dafa woon benn lii yëpp complot la. ba léegi complot la. déglu ma wëlbati ko waat dem naa salon bi. Hmm. ci tuitam bu njëkk dafa ne lépp complot la def conférence de presse. mais dafa mos wax demul ci salon bi mais dem naa ci salon dafa mos wax demul ci beneen bi Ousmane Sonko moo taxaw ne bu ñu levee sama immunité parlementaire du ma dem. Hmm. Ousmane ko boobu moo wëlbati ko waat. Hmm. ne levé nañ sama immunité parlementaire dawuma Ousmane Sonko boobu. moo taxawaat dem na boobu moo taxawaat. ne carrément man dama feebar man ba may nekk xale sama yaay daf ma doon jëndal. Euh, graisse yu yeew di ko dul sama ji di ginnaaw. wëlbati ko waat ne dara jotuma dara jotuma. attention dara jotu ko non attention foofu damay leeral dara jotu actuellement def lu ngeen ci warul def yoon yéen la. non dara jotu ah. dans cette histoire de viol la dara jotu ko on a besoin même yéen loolu da leen di dimbale. affaire viol bi na leer. Eh, mais loolu dafa leer aux yeux de tous les Sénégalais xam nga yow doo dem massage. yow yow da ngay dem salon de massage loolu non yow xoolal la xoolal téléspectateur yow da ngay dem salon de massage. président Macky Sall moo jiitu. ci salon massage. xamal looy yow da ngay dem salon massage. non yaa ministre yi dañuy dem salon massage. yaa ngi bàkkaar plus plus dañuy def plus. góor gi plus xam naa waaye ma ànd ak ñoom ci ay tournée. waaw waxal ak ñoom ne man génn ma ci loolu. génn ma ci loolu yow yow peut-être xaw ma la. mais yow da ngay dem salon de massage yow laa wax mais bañ a dem salon de massage. ah xale yi vingt ans yi di la massé. Biram Khoudia day dem salon de massage. non Biram Khoudia normal sa carrière politique dama gàtt dama toppatoo carrière politique. dëgg moo ma gënal carrière politique. alors alors ñu ñëw si. dëgg moo ma gënal carrière politique ban carrière politique. yéen xaalis ak politique li mu leen jaral dafa ëpp. s'il vous plaît ah, boo demee nga gis ay jeunes yu mel nii di waxe nii mais da ngay waaru Sénégal ban avenir la mën a am. d'accord parce que dëgg bi dafay taxaw ngeen jël ko teg ka fee. c'est un problème xam nga waaw ñun dañoo jàng période jàng. waaw ah. jàng école bi. thèse antithèse synthèse bi ma contre man. nga xam ni seen façon njàngin mi man contre naa ko dama koy changé. système éducatif bu bon ah, bii. nga xam ni dañ lay jàngal inter thèse antithèse synthèse. dëgg la du dëgg seetal li ci digg bi. loolu du l'islam du ngor. dañu koy changé. il faut nga xam ne dañu koy changé non jàng bi dama la bëgg wax rek. waaw du jàngu dara la concerné. du jàngu dara. yow la concerné mais dañ lay wax da ngay changé système. bàyyi ba ngeen yéeg xeex leen ba ngeen yéeg ngeen changé système mais dama la bëgg wax dara loolu yow la concerné. loolu la concerné mais dama bëgg nga xam benn affaire. Birame ñun bañ tollee jàng rek jàng buñ tolee liggéey liggéey nañ te xamuñu Macky Sall tey ñu ngi dimbale ci lim ñu dënk ci bi tey nag boo faree boo faree ci ci ci ci xujja gi ñu ne yaa baax boo xaree ci gouvernement bi ñu ne yaa bon waaye waaye nag bàyyi leen ñu am na ñoo xam ne nag baax nañu ñu ngi fi comme yéen aussi am na ñu fa baax ñu ngi ci yéen mais tamit na ñu bàyyi xam nga patriote yéen lan ngeen war a bàyyi yéen yéen da ngeen yaakaar yéen a gën a mën a saaga yéen a ëpp fit wala yéen a gën a farax yéen a ci yéen am na ay patriote de yéen a ngi nax seen bopp de ñoom am nañu ay patriote yéen a ngi nax seen bopp yow nii ngay wax lan lay wax am na ay patriote am na ay patriote comme mu amee ay patriote ci yéen ok excusez-moi Serge ñu dem vers l'essentiel s'il vous plaît li ñu bëgg a wax tey mooy bu fekkee ni immunité parlementaire boobu dañ koy levewaat ci beneen étape mhm. lan moo war a nekk taxawaayu assemblée bi nga xamante ni est-ce que jotul tamit mu tranché jàmm ni ñooy Sénégal am non non loolu buy am kañ c'est clair la sera la même procédure le ministre de la justice va encore vraiment l'assemblée est là pour le peuple pour le peuple parce que. l'assemblée parce que li ñu gis keroog tamit la possibilité. xam nga levée immunité parlementaire il faut ñu boobu. assemblée lan la pour juste rek ñu leeral la assemblée ne tranche pas assemblée pouvoir la boo. xam ne oui dañuy permettre nit ki rek dem yu wuy yoon. loolu la dañ lay permettre dem wuyu yoon léegi loolu nag ndax commission ad hoc en encore se réunir. d' accord Birame Khoudia assemblée man a nekk taxawaayam ci bu fekkee ne dañuy lever waat immunité bu Ousmane Sonko. xam nga man assemblée bi yow danga ko jàppee assemblée man man man pour chambre Macky Sall la. c'est-à-dire la mu bëgg la ñuy def man noonu laa ko jàppee. parce que assemblée boo xam ne dañuy xaaxar assemblée boo xam ne ñu ngi xeex bu dégg bëccëg. assemblée boo xam ne dañuy saaga ñëpp di dégg. assemblée boo xam ne mais opposition ak majorité am ñoo fa nekk. mais assemblée bi euh, majorité. boo am ñoo xam ni dignité lañ fa toogee ak ñoo xam ni saaga lañ fa toogee. d'accord loolu mooy problème bi assemblée boobu dama ni euh, du ñu def seen rôle ils sont à la solde de l'exécutif te loolu dañ ko war a changer yéen sax war ngeen ci d'accord pour ñu changer ko am na ay député majorité yoo xam ne d'accord ci li xew assemblée nationale taxawaayam dafa war a nekk protéger député bi immunité parlementaire waruñu ko lever noonu te jaarul ci procédure bu normal Bamba Dieye lu tax mu démissionné Guirassy lu tax mu démissionné loolu yëpp ñàkk jaar ci lu normal ak ñeneen bi bokk ci euh, majorité présidentielle te d'accord uñ ci lii di xew parce que dafa tuuti dafa baax ndaw c'est de bas étage ok fi ñu daane leen ndaw si génn wax que ni Ousmane Sonko dañ ko futti ba mu set euh, daal di koy drogué mu génnaat waxaat ni kii dafay dafay jéggalu nii loolu amul tamit euh, ndax nekkul yéen pression bu ngeen nekk di exercice justice bi tamit attention ndaw si génn wax loolu man gis naa ko. ndaw si génnaat ni mu waxee niruwuma nax ni ndaw su jëkk sa la parce que ndaw su njëkk sa la mu wax mooy mën nañu changer sa baat ba pare fexe ba defar ay vidéo ba nga xam ni boo dee wax loolu bu fekkee dëgg dimbali ma ndaw soosu génn bi muy njëkk wax dafa ni mën nañu changer sa baat comme ni ñu mën a changer baatu Ousmane Sonko kon est-ce ndaw si noonu mais la suite nous édifiera de toute façon bés bu ñu gisee ay image obscène sénégalais yëpp nañu xam ni du dëgg ay manipulation la te APR ñoo ko def ak gouvernement euh, bi Serge waay euh, vidéo boobu vidéo existé na avant ok damaa bëgg biram nga xam ne ah lu tax génn woo la ba léegi déglu ma ngeen xaar ba léegi déglu ma li ngeen amoon yëpp génn ngeen waaw déglu ma na loolu bul ko werante yow waxal sa waxu bopp waxal sa waxu bopp rek ban vidéo moo am bu ñu waaw dama ne biram vidéo existé na jàmbaar ba pare yow nga yëg ka nekk waa affaire caméra de surveillance dem na fa caméra nga may wax te buntu salon bi am na caméra de surveillance ah, caméra de surveillance ci biir la amul jour boobu caméra de surveillance ci biti sax mais demal ne caméra de surveillance ou pas vidéo existe na ah. léegi affaire ndaw si nga ma wax ah. affaire ndaw si ba mu defee vidéo yéen ñëpp gis ngeen mel ndaw see toogaat di jooy di jéggalu Sénégal. vidéo bi génn na xam nga loolu mooy lan non vidéo génn na. bu ndaw si boo buggee bu ñu génnee. la ko obscène laa wax. non vidéo obscène boobu kay am na. wallaay boobu moom waa waa nañ bàyyi section de recherche. ñoom ban section de recherche. xam nga bu amoon yéen du ngeen ko génne ci commencement xam li may wax mooy lan. li may wax daal mooy. ah maa ngi bëgg gëm ndaw si nag. loolu loolu toujours loolu xam nga mooy lan mooy wax pacifique ci luñ ne toujours dans la manipulation toujours mais parce que yore yu appareil gouvernemental alors Ousmane Sonko ngeen jël ko un si amuñu ay moyens guddi googu ba ñenn ñi ah. jàpp sax ni dañ ko man ay quatre heures du matin ku ku ku dee ak sa man avocat dégg ñu wax ko mais man dégguma avocat dégguma un représentant de l'état di wax ci parce que man dama jàpp ne nit bu ñu ko jëlee section de recherche war a dem comparaître au tribunal cave rek la mën na ne mënul nekk feneen war waruñu ko yóbbu feneen te jàpp naa ne Ousmane Sonko du gone Ousmane Sonko. bu ñu la pikiiree nag comme ni ko Ousmane Sonko bu doon tey jàpp nañ ko wala pikiir ko wala mu nelaw. wala ñu def ko leneen. Ah. xam nga ne am na voix yoo xam ne dina ko wax sénégalais dinañ ko jox partisan bi dinañ ko yëg kon loolu amul. d'accord dama ne tey mi ngi wax ay complot. Cheikhul Khadim laa lay waatal. Ah. Ousmane Sonko bu doon ah, état noo non lu ma rek bu doon état dëgg-dëgg moo ko bëgg a comploter wala ndaxasal moom. Euh, wérgu yaramam. tey il est à la merci de l'État. mais dafa mel dil bi setul tamit. non mais dama ne même dil bi bu set dama ne. Euh, euh, xam nga ñoom ñoom dañ ne début bi. lii complot la. ñaareel bi ñu ne. bu Ousmane Sonko demoon ci corniche bi. mënoon nañ ko attaquer. wala naxasal ko dañ ko bëggoon attaquer ci corniche bi mais looy cu loo doon cuune cuune cuune cuune. Mm-hmm. Ousmane Sonko keroog ak ñi mu àndal génn di dem tribunal état di ko songlu ci corniche bi. mais dama ne loolu ñi koy def mbaa ndax seen xel baax na. maître Seye est-ce que bàyyi ma foofu laay terminer pour wala quoi. Mm-hmm. pour wala tey de cette même manière. bu ñu bëggoon compléter Ousmane Sonko dëgg-dëgg. wala faagaagal état tey mën naa taxaw parce que tey mi ngi section de recherche avocat gisu ko partisan am gisuñu ko. xam la ci bërëbu état la ne état bu ko bëggoon liquider liquider nañ ko mais tolluñu foofu Sénégal du Chili. Sénégal du Birmanie Sénégal du yeneen dëkk Sénégal Sénégal la parce que Ousmane Sonko c'est notre frère quoi que l'on puisse dëkk bi kenn munu ko diviser. lenn la ñuy ne tey laa lay wax Ousmane Sonko kenn ñaanu yàlla tey atteindre moom ci yaramam loolu kenn ñaan te que nekk ci parti bi APR aussi am na ñoo xam am nañ fu la loolu kenn du ko nangu. d'accord. alors euh, Birame Khoudia Lo ñu daaneel. waaw li nga wax ne dafa nekk section euh, de recherche nga xam ne mu ci loxo état bi nga ni loolu buñ ko bëggee faagaagal loolu dafay nekk ci lu leer c'est-à-dire munoo ñëw ba ci lumière bii mu leer naa ñu nga faagaagal ñoom obscur bu amee fa la ñuy faagaagal <laughs> non dama lay wax fii kay buñ ko faagaagal ñëpp dañu xam état bi la. Hmm. mais fële bu fa duggoon ñu lëndëmal biir biir biir biir tunnel ba tëj ko ca biir tunnel ba mën nañ fa def lu leen neex kan la ñuy dañ naan xeex amoon attention ñi ngeen di waxal ay borom xel lañu lu ngeen xalaat xalaat ñu lu ko ëpp. non yéen clip rek ngeen leen def loolu moom na ngeen xam. ngeen tourné clip rek ñu <laughs> comprendre. je te dis la vérité mënuñu comprendre jeu bi daal. ma lay wax de seen jeu bi mënuñu ko comprendre da ngeen koy clip ñun ñu mën a concerner clip bi sax. Sénégal a ngi noonu doon ñu doon ñu seetaan ñu amoon mbégte dalal fi Ibrahima Serge Malo du responsable politique bu APR ak Ibrahima euh, Birame Khoudialo nekk euh, ci euh, membre bu pôle de fusion avec Pastef. donc mu nekkoon euh, waxtaan boo xamante ni li si jublu rek mooy leeral askan wi surtout que tamit fi mu toll faaw rek ñu gën a apaiser ñoom ñaar ñëpp du ñu ay ennemis nag waaye waxtaan moo ko laaj débat d'idées lañ soxla surtout que sénégalais yi jamono ji loolu lañ gën a yittewoo Serge ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal. d'accord maa ngi jaajëfal aussi sama sama co-débatteur. sa copain quoi waaw sama copain wax dëgg yàlla. <laughs> di la ñaanal waaw nit ku baax nga nit ku baax nga ñu ngi lay jaajëfal véritablement di la sant bu baax di la gërëm di sant télévision bi ça nous a donné l'occasion quand même de parler aux Sénégalais d'accord mu nekkoon seen télévision Equivox TV bu nekk rek ñuy génn fu foo xamante ni mën na leen jëriñ